abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. daal leen ak jàmm seen kii di Clédor Sène yëkkati na ay kàddu daal di xamal Sénégal yi que ne lu daal kii di maître Moussa Diop ba muy génnee ay document ci conférence de presse bi mu doon amal di wax ci contrat en armement bi nga xam ne ne kii di président Macky Sall da ko signé biir palais. te document yooyee daal di nekk ay document yu authentique yu am te du ko mës a mën a prouver ci kanamu yoon ne loole daloon na kii di président Ousmane Sonko tamit ci coow lu jar ci diggante moom ak kii di mambay ñaa Niang kii di Clédor seen ne kii di maître Moussa Diop document yu mu wone te muy wax que ne kiir président Macky Sall dafa signe benn contrat ci benn achat de munitions ci réew mii di Sénégal ne document yooyee document yu authentique la yi nga xam ne ne lu am la te kii président Macky Sall moom moo ci signé ak benn général bu nekk biir palais te muy uyoo ci turu aadama Gueye kii di Clédor Sène daal di wéyal ne document yooyee nag lu ñuy nekk dëgg-dëgg kii di maître Moussa Diop du ko mës a mën a prouver ci kanamu yoon ndax ne document yooyee ay document administratif lañ te pour ñu valable devant la justice faaw ñu daal di koy publier de manière officielle ne li mel bu amul boo ko présenté devant la justice mun nañ laa toppee lu ñu dippee recel de document administratif faux de faux ak yeneen yi ne li ni mel moom moo sabab kii di maître Moussa Diop yore na ay documents yu valable waaye du ko mën a wone comme kii di président Ousmane Sonko ba mu jiiñee kii di Mame Mbaye ne daa am benn rapport bu ko daal di indexé te loolee ba mu demee devant la justice mu bañoon a wone document yooyee ndax mënu nañu jël ay yeneen xeetu tuuma daal di koy teg ci ndoddam abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar